الله الله الله الله رتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم mbokk jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu naa ngi sant sunu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñëwaat ci sunu jotaayu warattilil qur'ana tartila di jotaay bi ñu ànd di jàngat ahkaamu tajwid te sukkandiku ci téere yi nga xam ne boroom xam-xam yi bind nañ ko ci fànn gi nekkoon ci muqaddimatul jazariya dooroon ci suñu jotaay bi wees baabu sifaatil xuruuf laytaayal nañ ko bu yaatu ci jëmmi sifaatul xuruuf lan mooy njëriñam xam gi waaye ñaata wàll la am sifaat daatiya ak sifaat ardiya sifaat daatiya yi nga xam ne moom la boroom téere bi jàngale moom it ñett wàll la am di sufaatun laha didd ak sufaatun laysa laha didd ñu war a dugg nag ci firim fànce gi tey jii mun sufaatuha jahrun wa rixwun mustafil munfatixun musmatatun wa didda qul kon ci bayti boobu waxoon naa ci jotaay bi wees ni lim na ci juróomi sufa yi nga xamante ni dañoo am contraire seen contraire nag mu waxoon ni wa didda qul contraire bi waxal ni mooy mahmuusuha almahmuus almahmuus mooy contraire bu njëkk bi ci sifa bu njëkk ba mooy contraire bu njëkk bi ci sifa bu njëkk ba sifa bu njëkk ba moo nekkoon jahrun contraire bi mooy almahmuus almahmuus euh, moom am na تي حرف يمو تنك تي فحثه شخص سكت فحثه شخص سكت باتو الهمسنك دنك تعرف خفاء الحرف لضعفه وجريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه مانام حرفي ينكتي تي همس دانيو نيو دوليه maanaam fa ñu fa ñu dëkk dañ fa néew doole loolu daa tax bu ñuy génn dañuy mel ni lu génnaale ak noyyi dañuy noyyi waale boo waxee xarafi hamsi yi xeetu noyyi wala weccit woowu di génnaale bi nga ne ak ak loolu génnaale eh, nga xam ni xaraf yi dafa mel ni lu noyyi loolu mooy melokaanu alhams mooy melokaanu alhams moom حرفي فحثه شخص سكت نيوكا الفاء الحاء الثاء الهاء الشين الخاء الصاد السين الكاف التاء حرف يوي نيو ام ملوكانو الهمس بنن حرف بوبوكل تي حرف ينك تي فحثه شخص سكت melokaanu contraire u xams la am ci seen diggante ñoom ñaar kon aljahr la am aljahr mooy lu xumb wolof buñ ko waxee ci wolof aljahr mooy lu xumb ñu koy taarife zuhuru lxarfi li quwatihi maanaam aljahr daf bokk ci sifaatu quwa yi même sifaatul xuruuf waroon naa ko wax ca laytaay ga buñ koy gaaralee diggante am am am kàttan ak néew kàttan xaraf yi ci sifaat yi dañuy gis ne dafa am sifaat yoo xam ne dañ leen melo melole sifaatu quwwa am yu ñu sifaatu doof dafa am sifaat yoo xamante ni melokaan yoo melokaan ak kàttan lay wane ci xaraf yi lu mel al jahr lu mel al shadid al istiala ak yu ñu am yoo xamante nii xaraf yi dañoo néew doole tax ñu meloo noonu kon al jahr ci la bokk xarafi jahr da nga yëg ni ni xarafi hams suufee néewe noonu doole ba bu ñuy génn mel ni kuy noyyiwaale moom ñoom meluñu noonu ñoom fa ñuy génn dañ fa am doole bu ñuy génn danga yëg ni dañuy mel ni dañuy génnale ak kàttan dañoo xumb aljahr mooy lu xumb kon aljahr ginnaaw bi hams jëlee fa xattahu shaxsun sakat yoo ci des yépp موم داكوي جيل داخ موي كونترير شديدها موم تاميت تي ضد يلا بوك تي سفان يلا بوك موي ضد الرخاوه موم الشديد الشديد موي ضد الرخاوه الشديد نك داني وخني انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لقوه al-i'timaad ala maxrijihi jamono bi ngay tudd xaraf yi am sifatu ashidda day mel ni xaraf yi dañoo bañ a génn nga leen bif di leen xëcc ndax doole gu ñu am fa ñu dëkk fa ñuy jógee dañ fa am kat dañ fa am doole day mel dañuy bifu nee na laf euh, shadid xaraf yi ko am mooy ajid qatin baket alhamza aljiim الدال القاف الطاء الباء الكاaf التاء gis nga ñoom xarab yooyu jàng ci benn bi sukku nag da nga yëg kàttan giñ ñu lay wax fa muy jógee ab ab aj aj da yëg jaxr gi ñu waxoon xumb gi mu xumb ko ci yëg waaye doole jam am ca fa muy dang ko fay yegalé doole joji mu fay am ndax katan bi am ci makhrajam lol moy sifatu ash-shadid kon buñu ñewé ci sifatu shadid jox ko ajit xatin bakat euh philosophie bi don doxé moy sa bu dut jëlé rek la ci dess lépp mom la beneen safaanam ba di jël waaye fii nag demewut non ndax shadid raxaawa moy contraire am ci xaraf yoo xam ne nag nooyu ñu nepp waaye dëgëruñu këcc it fañ dëkk nooyu ñu fa nepp ba boo leen yolomalee rek ñu ñu yolom génn waaye dëgëruñ këcc it ba mel ni ajit xarafi ajit xatin baket xaraf yooyu nga xam ne ci diggante bi lañ nekk juróom lañ mooy xaraf yi nekk ci baatu lin umar moo tax mu tekki ni wa bayna rixwin والشديد lin omar maanaam ci diggante sifatu raxaawa xaraf yi am sifatu raxaawa ak xaraf yi am sifatu shadid di ajit qatin bakat ci seen diggante am na xaraf yu fa nekk yoo xam ni dëgëruñu comme ñi waaye tamit nooyu ñu nepp comme ñële kon ñoom ci diggante bi lañ nekk te boo waxee xaraf yi di nga ko yëg al an a am ar da yëg ni dëgëruñu comme aj ak ak dëgëruñu këcc ci seen maxraj comme xaraf yi ma mujjee tudd waaye nooñuy nepp na nit comme ah ash ak yu ñu demee kon ñoom lañuy ñuy tudde alxurufu albayniya mooy xaraf yi nekk ci diggante arraxaawa ak ashadid juróom lañ mooy xaraf yi baatu lin omar composé wa sabu ulwin nee na juróom ñaar ci xaraf yi am nañ sifatu al istila wa sabu yaani juróom-ñaar xaraf yoo xam ne ulwin dañoo kawe xaraf yooyu yi nga xam ne ñoo am sifatul istila boo leen tudd da nga yëg ni ak wàll ci sa làmmiñ day jug jëm kaw laal yi Euh, la ko féete kaw xaraf yi ci des nga xam ni bokkul ak yi am sifatul isti'la moom boo koy tudd saw làmmeñ day tàlli nga xam day mel ni lu jëm suuf moo tax ñuy jox leen sifatul istifaal yooyu am sifatul isti'la juróom ñaar la wa sab'u ulwin mooy xaraf yi composé wu ci faraasu xussa dagtin qid خص ضغط قض الخاء خاء آه، الصاد مانغوك الضاد الغين الطاء القاف الظاء نيوم دانيو ام ملوكانو كاوي دانيو ام ملوكانو كاوي الاستعلاء يينن حرف يدل جي ñoom dañoo suufe ñu jox leen melokaanu alistifaal moo tax mu ni wa sabu ulwin xussa dagtin qid mu ni wa saadu daadun taau daau mutbaqa wa saadu daadun taau daun mutbaqa xarfu saad ak xarfu daad ak xarfu taa ak xarfu daa ñoom dañoo am sifatu al itbaaq dañoo am sifatu al itbaaq al itbaaq nag ma iltisaaqu taifatin min al lisaani bil xanak al aala inda an nutq bil xarf xaraf yi am sifatu al itbaaq mooy xaraf yi nga xam ne boo koy tudd sa làmmeñ ak al xanak al aala espace du fa am sa làmmiñ maanaam fañ koy tuddee ak alxanakal ala do doom espace day tëju moo tax ñu jox leen sufatu al itbaaq ñetti xar la at as ah, ad ak ad dood sood doo to ñoo am sufatu al itbaaq contraire am ca koy tudd ca baytu bu njëkk mooy munfatih al infitaax yeneen xaraf yi dul ñoom ñeent ñii ñoo ko am sifatul infitaax mu ni wa firra min rubbil xuruuf al mudlaqa sufa yi nga xam dañoo am wala melokaan yi nga xam dañ xaraf yi nga xam dañoo am sifatul indilaq mooy xaraf yi composé wu ci baatu firra min lub راء ميم نون لام باء منغوك الانطلاق نك موي خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان أي طرفه مانام حرفي دانيو تياتي حرفي فر من لب دانيو تياتي تياتي غوغو نيو daa tax seenu génn yomb daanaka ba ngang ñuy wadd ndax cate cate googu lañ leen melal al indilaq yeneen xaraf ya nga xamante nii ñoo leen gën a biire tuuti ba jëm ca hamza ma nga xam ni mooy mujj ñoo am sifatu al ismaat al ismaat ma ngoog kon sifatul xuruf mi ngoog eh, yi nga xam ne dañoo am contraire lim nañ ko لمن جهر رخاوة شديد استعلاء ولا جهر الرخاوة الاستعلاء الانفتاح الاسمات لم سين كونترير مهموس ما كونترير جهر مهموس فحثه شخص سكن ما حرفهم كون جهري جس يبلا ما حرفهم آه، الشديد ما كونترير رخاوة أجد قطن بكت ما حرفهم لين عمر جناتي بالحروف البينية كن لا تدس جناو أجد قتل بكر يشديد جل أك لين عمر جي الحروف البينية لا تدس من حروف الرخاوة إننا كونتريرو الاستعلاء كونتريرو آه، استفال كون ما الاستعلاء خص ضغط القدم حرفهم كون لا تدس لب في حروف الهجائية مم لا استفال دجل إننا آه، كونتريرو al itbaaq contraire euh, ba mu limoon mooy al infitaax contraire mooy itbaaq ñeenti xaraf la am sood dood to za kon la ci des lépp moom la infitaax di jël waaye wax na tamit al ismaat contraire mooy indilaaq firra min lubb la jël la ci des lépp kon moom ismaat moom lay jël li moo yi nga xamante nii ñoo sifaatun laha didd sifa yi am contraire تبير الصفات الذاتية للحروف العربية سنو جتاي بي نيو نيو تي الصفات التي ليس لها ضد تي صفات ذاتية يوي سن بكلون أبو طه محمد علي نجي عندنا جين تي سن جتاي ورتل القرآن ترتيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله الله رتل القرآن ترتيلا